ñii ñii amuñu jom rapport yi mbala maa ne amuñu jom quoi bi passé six lañ leen dóor mais émission bi dañoo yaakaar ne comme dugal nañu trophée bi rek seen euh, macha allah yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana Thione moom la ñu euh, euh, moom la ñu delloo hommage ren jii mais ñoom pour ñoom comme dañu koy delloo hommage rek ñoom ñu jël coupe bi mais bi passé doon na leen six bii douze lañ leen di dóor. doon loo xam ne am solo sànq gis nañ ko euh, maanaam temps yi yëpp bi. Ah. Euh, à chaque fois dañ ciy tudd ah. violence. waaw lii dafay indiwaat sport bi pour nit ñi yaakaar naa ak euh, ministre des sports bàyyiwaat nawetaan yi ak li nga xamante ne dañ ko suspendre ci sport parce que lii li mooy li mooy li mooy fo nit ñi ñëw sol lu rafet. toog ci kaw supporter loolu mooy sport mais sport du ay violence sport du xeex sport du xuloo sport du ay sànni du ay toj ota jàmbur li mooy sport quoi li mooy wane ne ñun ñoo bokk ndey baay parce que bu ñu nee ba naan mbalax maan ak lëbët loo nga xamante ne concurrence la ñu ngi bokkul la ñu dem bay tey ñu am bisal bis di fo kon ñëpp war xel ci lii quoi. noo gisee maanaam yus kii euh, suñu papa Thione Seck muy rendre hommage. waaw lu neex la parce que Thione Seck way na lépp Thione Seck boo xoolee rappeurs yi sax la gën a jox rappeurs yi la gën a àndal sax kooku am na benn projet boo xamante mu ngi koy mu ngi koy mu ngi koy dimbal projet boobu rappeurs yi la ci la ciy invité te bu neexee yàlla dina génn bu soobee. merci beaucoup ok ñu ngi boobu. Edmond ñu maa ngi fay. noo gisee tey initiative bi wax nañ ko à chaque fois lañ koy répété que waa initiative bu rafet la mais tey dafa exceptionnel parce que dañ ko tuddee koo xam ne rendre hommage koo xam ne euh, peut-être mu neexoon nekkoon na père de la nation muy kii di Thione Seck noo gisee loolu. sama papa la woon papa Thione sama papa la woon sama xarit la woon di ko ñaanal yàlla xaare ko aljana donc mu nekk lu rafet ba pare xam nga mbër yëpp ñëw footballeurs yi euh, rappeurs yi musiciens yi ñëpp daje fii mu nekk une une fête nationale donc muy lu ñu koy rafetlu bu baax a baax et eh, teewee nañ ko neex na et eh, voilà sant yàlla. ñu gis ne temps yi yëpp Sénégal gis nga violence dañ koy wax si wàllu sport moo xam si lamb ji moo xam si football bi en tant que jeune te ay jeunes ñoo koy def. ban lan noo ko mais dama ne en fait jàmm ci la lépp xaj. donc nañu andi jàmm ci dëkk bi. xam nga te occupation nag jeunes yi am occupation tuuti quoi te occupation pour mu am mooy vraiment ñu utal jeune jeunesse bi li nga xamante ne si mooy espoir quoi ñu liggéey yooyu yëpp bu ñu ko amee je pense que dinañ mën a vraiment euh, occupé wu et dina dina baax ci town bi quoi parce que loolu moo ñu ñun ñëpp tey jii nii neexuñu li li nekk di am nii mais li ñu gënal mooy vraiment jeunesse bi am leen occupé bu ñu amee ay bu ñu amee liggéey du ñu tal yenn yi donc vraiment na ñaari ñaari côté la jeunesse bi bu ñu am bu ñu bu ñu taamu liggéey beneen partie bi mooy. ñi nga xamante ne si mooy nguur gi nañu utal booy tamit espoir quoi nañ leen utal loo xamante ne si mooy mën a si luñ mën a jàpp ba nga ne si vraiment duñ tal yenn affaires yi je pense que bu loolu bu amee rek temps bi dina cool quoi. encore comme d'habitude comme d'habitude ñun dañuy gagné xam ñun moom léegi dañ ko tàmm quoi dañ ko tàmm gagné bi dañ ko tàmm mais li ëpp solo mooy Sénégal ki gagne ndam bi amul kenn ku ko moom ku dul Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk te bépp compétition bu am muy lamb ñaari équipe yëpp nañ comprendre que ni Sénégal lay yem du dem feneen fu dul ci Sénégal. merci beaucoup. boo nañu wax mooy mooy le précurseur euh, tey di Baxaw noo gisee journée bi tey. waaw déjà di remercier sénégalais yi nga xamante ne bàyyi nañ seen yitte pour ñëw ci événement bi di remercier aussi la presse sénégalaise yëpp di remercier ñëpp ñu fi teew. pour wane na Sénégal benn bopp la kenn mënoo ko xaar ñaar jàmm rek moo war a lal fu nekk tey wane nañ un bon exemple encore artistes musiciens mbalax ak rappeurs yi def drapeau Papa Thion yàlla def euh, mbalax maa ni rappeurs yi gagné juste rek si si si jàmm ak salaam. donc loolu moo ci taxoon jóg. mais ñi gis temps yii yëpp maanaam violence buy am maanaam fii si Sénégal te la plupart jeunes ñoo koy def te si wàllu sport lañ koy tudd te tey jii def ngeen loo xam ne peut-être day wane ne sport mën na def sans la violence. lépp loo gis si àdduna mën nga def sans la violence parce que dañu wane que ne que Sénégal amul nit bu soxor peut-être ay njumte mooy am rek gars yi di def naka su noonu mais li fi jot a xew yëpp man damay jàpp ne njumte la parce que Sénégal xolam ki ñaan nekku ci soxor nekku ci de violence aussi ci je pense que ne euh, nañ ñaan yàlla rek jàmm yàgg Sénégal nañ ñaan yàlla rek jàmm continue di law ba àdduna tukki incha allahu rabbi. merci beaucoup merci beaucoup Ban ñu sama gars si aar noo gisee tey initiative yi xam ne waa nii waa peur mën nañoo xanaa parce que kii euh, moo ko jiite noo gisee initiative. ah mais nice rek parce que day boole ñaari ñaari corps musique yu bokkul quoi bon musique la musique en général quoi mais peut être ñoom mbalax la ñuy def ñun rap la ñuy def c' est bien chaque année ñuy organiser benn événement boo xam ne ñëpp dañuy dajaloo quoi donc c' est ñu gën a suude wu xam nga wan ne voilà quoi Sénégal benn la ñoo bokk ndey baay voilà mooy taxawaay bi fii daal man ak sama cause. mais ñu gis loo xam ne mooy maanaam hommage ñu daan ñu hommage à Thione Seck loo gisee loolu. ah lu naay sax c'est parce que con Seck mënoo lim ñetti artistes yu gën a mag Sénégal doo ko si boole. donc c'est carrément mérité quoi di ko di ko ñaanal suuf sedd si koom et que voilà quoi yàlla xaaree ko ci àjjana yi gën a ngande. ngeen ay porte ay porte de voix ngeen. Mhm. te gis nañ temps yi Sénégal violence bi si am te ay jeunes ñoo koy def lépp lépp conseil jeunes yooyu. ah borom dëkk bàyyi nii waxal ak jeunes yi violence. mooy borom jeunes donc boo gisee maanaam conseil boo xam ne amal na ko nga xam ne ça veut dire que instant yii nii jeunes yëpp moom lañ soxla euh, comme ni koy waxee temps yëpp gis nañ Sénégal euh, violence yu bëri si te la plupart ay jeunes ñoo koy def te sport lañ koy def te gis nga tey jii nii organiser nañ loo xam ne match rappeur contre mbalaxmaan te amul benn violence. waaw lii exemple la rek. pour wan nit sport foo la culture kap foo ree la xam nga euh, dañuy ñaan yàlla rek xaw ma lan moo dugg ci dëkk bi ba ay lu xew xeex am toj bopp agression di ñaan yàlla daal moom mi nga xam ne dara tëwu ko mu dund loolu ba mu set wecc parce que Sénégal du pays de la teranga la wayoon na ko ñun ñoo war a dalal xelu ñoo xam ne nekkuñu fi euh, donc daal jeune bu nekk na xam ne sport kap foo ree la culture kap foo ree la buñ ko jàppee noon rek du metti. boo benn bi moo am booy Medina bee ko dugal biir Medina xam nga donc euh, li ma leen waxoon rek avant maa def concert stade Iba Mar Diop nee naa leen su concert ba pare stade bi dañuy sant dañuy dindi Diop bi def ko sama sant Dioum bis ni que tey confirmé naa ko stade Iba Mar Dioum la tudd. mais yow jaamaan man na mbalaxmaan. jaa yow mbalaxmaan fu ne nga. lu tax nga man fu ne nga man man la Gloria man la Gloria aw benn laaf. mu nekk affaire bu nice loo xam ne nii mooy loolu xam nga day boole donc di wax di lancer appel pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo génne violence di leen wan ne leen donc lii mooy fair play lii mooy Sénégal ñun duñu ay bandits duñu ay être jeune ça veut pas dire que nekk impolitesse tu vois. bon dañu bàyyi def suñu interview ba pare ah. mais la 24 bi la 24 waaw mu nekk lu nice mu nekk monument. nekk goo xamante ni yóbbu na musique Sénégal fu ne tu vois mooy loolu donc xam nga bu ñu ko ko tuddee tey rek c' est quelque chose d' extraordinaire. yaa tey bu ñu nee sport dañu naan kaf foore waaye fu mu nekk nii mu mel ni sport bi jaxasoo na lool violence bi bëri lool naka nga jàngat. yee mais mooy comme ni ma la wax rek ne la lii des exemples à montrer pour wane ñëpp que sport ka foore la nekkul loo xamante ni dañ ko war a utiliser ci ay fin ou violence ak yooyu quoi na gars yi delloo si waat seen xel xam ne xam nga loolu la quoi amul ay affaire de tey jii euh, fii koo fi gaañ affaire de nawetaan koo fi gaañ di nga tasanteeg moom wala yaayam tasanteeg yow wala mbokk am doo rus xam kon jaru ko ba nit ñi di si perdre seen ay bakkan donc mooy loolu. waaw fan. na foto nii na foto. album bi ab yooyu bi. ay eh, foto si man mënuma ah. toj na maa ngi génne yëngal naa si waaw rang muy gaaw bàyyi feem yi. mais looloo baax mais parce que mais ah góor dafa war a gaaw kat euh, geen. le 24 décembre incha allah Diourbel ak beneen tournée nationale ñu ngi ñëw Grand Théâtre xam nga ak ay showcase yu ngànd ak ay big thing yokk si rythme